doon ñëw kilifa yi fi teew yëpp di nuyu honorable député Mansour Kébé may ñaan ne kàttu ma ko bu baax yàlla dafa dogal la waaye lu ñu xewle ñëw na wóllëre bi ñu bi ñu moo tax mais am na ñeneen ñu ma bokkal boobu wóllëre ko defee kon bu teew ñu koy nuyu sant ko bu baax te département bi am nay député waaye moom xoolul ne bokkul Kër Massar waaye li ñu xool di nuyu honorable député suñu wëlale également Moustapha Mbengue moom it département bi lépp luñ ci ñëw teew koy sant bu baax di nuyu représentant ONG Omar Sidi di Ablaye Moumoudi Guissé nga xam ne moom ONG bi mu jiite léegi la may wax ne pare nañ ak ñoom pare nañu pour convention boo xam ne dinañ ko def ak conseil départemental bi mu nekk benn convention boo xam ne programme bu 15000 logements donc loolu mu nekk lu am solo. benn convention la boo xam ne nee na bëgg na ko signé ak conseil départemental bi pour un programme de 15000 logements sociaux loolu nag damay ñaan ñëpp tàccu loolu. te nee dana liggéey après ak département bi ci wàllu formation yi yi fi nekk dañu xool après lu ñu leen jàppalee ci ay formation di nuyu président Diomaye Sène di nuyu président Assane Fall di le président de l'association départementale du conseil des aînés ma koy jéggalu sant may jëriñ français bi discours bi français de ko fàtte dafa nekkul woon ci liste bi muy suñu doyen di ku baax am yéene ci ñun le président Alassane Thioune jiite le conseil départemental des aînés di nuyu euh, madame Ndéla Fall di présidente bàjjenu gox yi euh, di nuyu euh, monsieur Mor Diakhaté di nuyu Marie Aw di des conseil départemental di nuyu bureau exécutif du conseil départemental bi di nuyu suñu partenaire madame Fall ñu ko gën koo xam ci Ndeye Ndoye nga xam ne ñun ak moom ñoo bokk tey organiser journée bi di nuyu conseillers municipaux ak conseillers départementaux yi fi teew yëpp di sant invité yëpp di leen gërëm di bëgg seen teewaay di jégalu nag xataay bi ak tàngaay bi di jégalu aussi ñu nekk ci biti waaye tàmbali moom mel noonu yaakaar naa ni déwén incha allah bu ñu. bu ñu ko organise waatee ñëpp dinañ kontaan dañu doon jéem rek ndax jéem principe la dañu doon jéem te gis nañu li ci nekk yëpp ko defee beneen yoon lépp lu ci nekk ci rëpp rëpp dinañ ko ci corrigé ñu ngi leen di sant en tout seen mobilisation rafet na waaye yéene bi ñu am rek mooy jàppale jigéenu Kër Massar lii c'est une première

te liggéey la boo xam ne képp kuy jigéen nekk ci Kër Massar da nga ci am wàll loolu moo tax ñu woo ñëpp ci suñu plateforme boobu muy plateforme boo xam ni euh, képp kuy GIE wala ngay association wala ngay fédération wala ngay fondation wala ngay entreprise di liggéey ci économie sociale et solidaire dañu lay enrôler ci boobu plateforme ndax dañu am partenaire boo xam ne nee na état bi ci jëw ministre de sociale et solidaire moom ci boppam moo ñu wax ne Bambey Diourbel ak Ziguinchor ak Dakar la choisir pour def euh, ay financement dem na bu yàggul avant tabaski bi Bambey étape bi ci topp na Kër Massar ndax nee na ñun avancé nañu loolu moo tax dafay ñëw accompagné bu ko defee ñu bokk nag bokk ak jigéen Kër Massar bu ñu ko jógee nag dañuy jógal ci forum international bi nga xam ne dañ koy organisé octobre te Ismaël doon ko tudd léegi te loolu yëpp jigéen ñi am ci rôle yu am solo yoo xam ni euh, war nañ ko ci joué loolu moo tax en tout cas ñu ngi wax jigéen ñi ñu gën taxaw xam ne ci liggéey leen jóg te liggéey dafa ànd organisation ko defee daal ñu ngi encouragé ñëpp guddi la ba noppi li ci des dinañ ko liggéey parce que journée tey bi dafay am suivi ci wàllu capacitation ak leneen ak leneen donc yamul rek ci feetu nii mais après ci liggéey la ñu jóg ko defee sant nañu ñëpp gërëm nañu ñëpp